mais waa am na ñu naan Amadou du sax teew premier deuxième tour. ñu naan. Amadou du sax teew deuxième tour. y a aucun sondage qui dit ça amul benn sondage buy wax loolu. deuxième tour. amul benn sondage buy wax ni am na candidat du pouvoir il sera au deuxième tour. voilà amul benn sondage buy wax ni candidat Benno Bokk Yaakaar du dem deuxième tour amul. ça n'existe pas mais maintenant dem deuxième tour ak gagner ce sont deux choses différentes est-ce que le deuxième tour est risqué pour le voilà, candidat du voilà pouvoir justement. pour cette présente configuration c'est-à-dire que deuxième tour toujours ci candidat pouvoir lay gën a metti mais configuration bi nag problème bi mooy ban discours la Amadou Ba di tenir pour am ay niti Macky Sall am ñeneen ñi dul niti Macky Sall foofu mooy débat bi parce que président dafa wax ci interview bu mu accordé dernièrement à RFI et France 24 mu ne boo gisee ñu tànn Amadou Ba c'est que Amadou Ba dina mën a compter ci bastion wu Benno Bokk Yaakaar APR waaye en plus en dehors de Benno Bokk Yaakaar APR Amadou Ba mën na mobiliser mu mel ni bu ñu demee deuxième tour dootul nekk configuration traditionnelle c'est-à-dire tout le monde bascule euh, vers ah, non, le non, candidat non, non, de, de, de l'opposition c'est-à-dire que là dans une configuration de deuxième tour ñëpp duñu dem ci oppo parti non non non c'est-à-dire que euh, am na candidat yu bari yoo xam ne nii par exemple je vois très mal candidat benn boo ko yaakaar di dem di soutenir keneen pour la Amadou Ba ça je le vois très bien Idrissa Seck ku mel ni day dem fële. Khalifa Sall Khalifa Sall sax góob day dem fële bàyyi bàyyi Amadou Ba est-ce que tu comprends. je veux dire y a beaucoup de dynamique yoo xam ni voilà non loolu mais je veux dire gagner premier tour moo gën a dalum xel ci candidat mu nekk au pouvoir waaw ci gàttal.